asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullah kii ngeen gis doomu Idrissa a il y cinq ans six ans ma di leen ko tudd mais mosu leen maa ma di leen ko tudd mosuma leen maa gëm kii drogue diila la baayam drogue diila la Idrissa Seck dama ne drogue bu leen wàcc ci poor bi dañ ko war a seet Idrissa Seck bu leen ko bàyyi depuis lors ma di ci wax ñuy fel sama gémmiñ idi musta liggéey musta xëy fenn waaw te lu ne lu ne am na ko alal ji nga xam ne sàccoon na ko muy ay koppar mu def ko ci turu magam bu jigéen boobu bi ndaw si dee jëkkër jaa tonne alal ja dem yoonam te lii ñoom ñu jël di ko business ci drogue bii c'est l'argent du trésor public doomu xaalis Seck xaalisu trésor public la jël moom lay defee drogue na ko Sénégal porté plainte ñu nangu li mu jot yor ci devise delloo ko waa Sénégal xaaj bi Sénégal ko moom xaaj bi Sénégal la ko moom nañ ko porté plainte laaj xaalis bi bàyyi boo ko sàccee ci nun mu sàcc ko ci baayam di ko jëndee drogue ak di ko jaayee drogue du tey lañ ko mos a jàpp ci jàpp ko lañ dëkk baayam di ko lijjanti mi ngi nii ba dama ne Idi doomam jóg ay bëtam doom jóg gënal ay bëtam te xale bi doomeeraam la joo xam ne sàcc ak cagatu naan sàngara jaay drogue képp moo ko intéressé lii moom leer na nañ dix-huit kilo dix-huit kilos de cocaïne ni jàpp ko ci ab ab sénégalais ab africain dix-huit kilo kii moom addunaam du jeex na wala suñ xaar bi Idrissa Seck sàcc mu jëlee ko ci EOK moo tax it dañ ko war a téye parce bu ko téyewul fa fa doomam ji gën a réew mi doomam ji ko gën a réew mi lii mu sàcc doom ji la ko jëlale avocat dama idi bu ngeen ko téyewul suñ quatre-vingt-quatorze milliards mu denc mu dencal buñ ko joxut dana ko fayal doom ji awoka ci réew mi lañ nekk États-Unis xam nañ drogue lu mu fi daan xam nañ ko ñuy jégal bu baax nag te daal Ousmane dal den ci ko Idriss Seck jàpp ko téye ko dama ne wéyu la billaahi mook baay beyam waaw tel père tel fils waaw dama ne ak ah, nii mu bëggee ay kopp bëggee ko nii ba ci ngat ngati ba dugg ci cocaïne bii mook baam yëpp ay bandi lañ may jégglu nag man la Seydina Ousmane Dramé bu la réveil des consciences ngir yàlla yeewu leen yeewu leen